jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon jibi jibi bu dee affaire courant bi la oh, la ah? jagaan jagaan bàyyi làkk yi na yéen man amaguma lu ma sama saret gi dafa paal man waxuma loolu nit bu jaaxlee kan lay woo du ay xaritam ay dëkkandoo ah. waaye yéen kay topp leen ma ne ah, kii man gaawal damay dem ca ngeen lale ah, baax na ñëw leen man maa ngi liggéey ma sama saret gaa ngi pànc soo ba léegi ñëw leen rek te noppi ma daal sax daal dama ne góor dég dég am nga droit takk ñu benn ba ñaar ba ñett ba ñeent gis nga ah. waaye bi am wax su ko am góor la ah. waaye man Ogada man la ah sama soble bi laa fàtte woon soble maman bi doon waxtaan fii sax yow kaay toog nu yeggali suñu wax lii moo gën dégg eh, eh, eh, na ngaa fàtte ne yaa raxas duus sànq ba léegi maa ngi lay xaar pour sangu yow Aïda daal yaa ma yëpp dëgg-dëgg yow sa woote gu rëy gi yëpp ma yaakaar ne leneen nga may doyee bu dul raxas duus bi man duma ay ayloog yéen raxas duus de baatu sama gan bee tax démb ma raxas duus bi nga yaakaar ma fi nekk di ay ayloog yéen man du ma raxas duus te bu dee man la rek doo sangu sa morom du sangu xam nga la laa la bëgg a yëgal man 6 heures du matin laay xëy wàcc fi xaaju guddi yàq seen i njaboot yi di utiliser duus bi na ngeen ko raxas ngeen doog see mën a dugg bu dee man la rek du set. Fatma yow yaa fuuy dëgg dëgg te Fatma yow ku réew nga. yow sama réew la yaa ko mujj tudd. duus bi nag da nga ko fa doon puusé métti te doo ko raxas. bi nga ko raxas nii waa ci ne yow nga nga wax nga ko raxas. dara ay dara di ko raxas dama raxasul dara ay raxasul bi. yow bu dee jël biir de yow de alaal ma. ay raxas duus ñaan du raxas duus. raxas ma ah Fatma. waaw Fatma yow tamit nag yow yaay kan ba doo raxas duus nag. te duus bi nga ciy dugg sa morom di ci dugg. waaw waaw léegi dafa naan. de sax biir bu daw de koo yomb. déedéet Diegane bay boo yow Diegane gis nga toj toj lan ngay wax léegi xam nga lan la euh, Aïda yoonu jàmm soriwul jëlee sa siwo nga dem rax nga nga dem yee ma reng. jinne bi. ma reng kii affaire raxas duus la waaw waaw dama rek dama rek dama war a ay raxas duus nee na du raxas duus loolu du problème dinañ ko régler. ah moom maa ngi du raxas duus tey dugg te duma raxas duus. ma reng. yow xamoo sa de Fatma. voilà yaa yéen a mujj xamoo sa de. maa xam sama bopp moo la du ma raxas duus bi di ko raxas ci nii. wala nga raxas ko ci naan. ma reng yow rek laa doon xaar nag dara laa laa egg si naa. ma reng egg si naa. jërëjëf jërëjëf kan nekk ci ngeen doon raxas douche bi. boo baax na ma reng. ay boy boy boy ay dem laaj. Eh, eh. yàlla baax na. waaye Fatma yow. ay waay yow yàgg nga kersi trop. li yàlla naan lil fitna ti la kubra ili man yàlla rëbb naa yeekatu fitna. bilaay waaye yow Fatma yow yeekatu fitna nga. Hmm. Fatma yaay kan ba doon raxas du douze yow Fatma raxas douze rek eh. yow yaa fi nekk yaa ngi dégg bu kii raxasee eh, tey kii raxas suba yow nga ni dee doo raxas xam nga li mooy lan jeegu ganaar set ci biir xawma set ci biti salte ci biir léegi man nga lan la ah jagaan gardel ma ko yow may nu tuuti yow amagoo droit ma baal ma ma gis baax ma ñëw ak wokkute bu daje question bi nii. boobu ba tey yaa ngi jàmbat fooy dugal sa pël bi. ba fa digg jàmm. te kii du nitu jàmm nitu seytaane la. pire te gis nga boo ko génnewul dugal sa pël bi bu ëllëgee buñ ko fi rey. yow ko ñu ko man itam loolu yow xam est ce que nga moom bi muy dugg ci kër gi benn ñaari weer ngi nii fayul. yaa ngi dégg ñaareel ba ah dugalu caution. loolu kay preuve la ko génne. moo koy suturaal ah. nii foo jëm. yow sax da nga yambaat yow kiroog maa ngi la jox rendez-vous la. Eh, lu waral lool. demaa ne la waaye boo ñëwee nga jaar sama looy nelaw. dama koy xas. Eh. Eh. yow jagan di nga xas kii lamiñam bu rëy bi mu ne pat léegi sax loolu garaawul. wala wax fa dëgg yàlla xool nañ ba xool xam ne munoo nekk ci kër gi. Mhm. ndax kër goo xam ne yow rek yaa fi histoire di xeex. doo mhm. bale doo raxas duus. doo def dara da nga dëkk ci kër gi. loolu c'est pas normal léegi nag balay loolu di si am mu génn. Mhm. ah léegi nag waxtaan nañu ba maanaam jibi mhm. may na la fukki fan ak juróom. Mhm. damay dégg nga gën kër gi. defal ko weer rek parce que yow Fatma déglu ma ñaari weer ngi ni nga amee ko si fayoo. loolu kenn yëg ko. musuma ko wax ma lay bi ngay dugg fayoo caution borom kër gi sonal na ma wit co waaw xanaa def ko nopp. ey noppil yow jagal ah jagaan bay jël kaas ci kaw ah jagaan séeréer séeréer yi séeréer yi yaa si gën a yées. Eh, ndax eh. yow séeréer yëpp am nañu xel mais yow amoo xel. Eh, xam yaa ngi dégg. yaa sa seen wax ji dafa bari man bu leen ma énervé wax leen seen fulla man damay dem sama yoon de nekk. fulla ji mooy nga génn ci biti ni ko la waxee. fukki fan ak juróom lañ la may nga génn voilà. voilà loolu la Ndiaye di wax. waqtu ba ta sa ges ah. man néeg rek laa doon wër fan yi seen kër gu salte gi xam nga boo amee gan sax danga ko fiiru sa dugal ah. Ah. fukki fan ak juróom yi ngeen wax nag heure bu ma amee lay génn yaa xam teew ma ko fukki fan ak juróom mënu ma ko tey soo génn dina woo huissier mu génn la ci bi seen say bagage ci bi kenn waaw yaa huissier faalew ma la yow yow dala ma sa ma la yow léegi ma danga ma yàgg jox rendez-vous moo tax looloo ma ma mën a

cover le kami yàgg yàgg yàgg dina daan ana soo tuuroo fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet